préparer une fusion écarter le président Karim Meïssa li mu jàllee ci loolu engager le combat contre taxawu Sénégal essayer de décapiter taxawu Sénégal xool nu mu écarter Khalifa Ababacar Sall mu paree ci loolu am 2019 son deuxième mandat ñu naa commencé waat le même exercice naa fexe nu ma tàmbalee décapiter le Pastef engage loolu naa xool nu ma tàmbalee décapiter le PUR bu paree loolu ci ban partie la jëm gis nga il se pense intelligent on peut le lui concéder mais il doit également savoir qu'il n'a pas en face de lui des fous on est autant ou plus intelligent que lui lu mu yëkkati na xam ni xam nañu lu tax mu yëkkati ko ak fu mu jëm te kar bi war daan ko ca parce que mënul continuer di penser qu'il y dans ce Sénégal deux droits le droit que lui il décide qui n'est ci benn kay nekkul ci benn support juridique mais un droit lié à sa volonté du jour à sa à la volonté de ses ambitions droit boobu mooy décider xool kan la koy appliquer nu mu koy appliquer nan la ciy sanctionner positivement nan la ciy sanctionner négativement et un autre droit qui est là pour tous les autres Sénégalais parce que boo xoolee noonu lay demee pourquoi moo wax la ko mais aujourd'hui au moment où je vous parle il a arrêté deux députés qui sont en session deux députés yi nga xam ni tey suba war nañ leen xaar biir assemblée nationale ñu war a mën a voter motion de censure mais yéen ñëpp toog fii ku xamul règlement intérieur du Sénégal amul ku xamul constitution bi amul sénégalais fu mu mën a ne ci biir réew ak fu niveau jàngam toll xam na ni député du danga koy arrêté nu la neexee xam na ni député du danga koy jël emprisonné ko nu mu la neexee député dafa am immunité parlementaire président Macky Sall dafa am immunité mais pourquoi se permet-il de prendre deux députés yi nga xam ni dañoo dem répondre à la DIC par respect à ce corps parce qu'ils n'ont pas reçu je le rappelle encore une fois de convocation mais parce que ce sont des honorables dès lors qu'ils ont senti qu'il y a un mandat d'amener avec leurs responsables, en responsable, ils sont partis répondre à la DIC. dem dugg biir DIC le minimum mooy au moins que ce corps lui restitue leur restitue ñoom it li nga xam ni moom la droit bi wax ci ñoom mooy leur immunité permettre leen que avant ñuy engager quoi que ce soit au moins que ñu adressé wu au niveau de l'Assemblée nationale ce qu'ils n'ont pas fait et xam ngeen ni depuis démb ñoo ngi foofu j'ai été victime de cela ici devant le siège génn député il m'arrête il m'emprisonne pendant dix jours ki nga xam ni moo doon yóbbu lu xew on a reçu un ordre et tu restes à Sébikotane député on te condamne vous pensez que réew mi mën na continuer non réew mi mënul continuer noonu gis nga ku naan bëgguma ay damay daw ay yaa ngi jël lépp ramener que sa bopp et la politique quand un homme politique sangage il n'a pas le droit de ramener lu mu mën a ci boppam donc daw mënatul ne parce que ce ne sont pas nos vies qui sont en c'est la vie de la démocratie sénégalaise qui est en jeu. Et quand je parle de la vie de la démocratie sénégalaise, ça transcende même les générations présentes, parce que ça intègre les générations futures. En ce moment, la posture debout devient une obligation. Une obligation pour chaque Sénégalaise et pour chaque Sénégalais. Parce que dafa am li nga xam ni moo ñu tënk muy suñu constitution suñu ay loi ak suñu ay règlement et constitution boobu moo tax tey ñu naan que président de la république Macky Sall moo tax mu jël suñu avion dem fale au niveau des États-Unis yegg fa la première phrase qu'il sort te ngeen am que mu def tey journaux yi mooy même ngi piétiner le droit parce que il dit que le troisième mandat c'est clair aujourd'hui que ce n'est plus une question de droit comment le, le troisième mandat ne peut plus être une question C'est ce qu'il a dit. Et vous l'avez relevé. Un président de la République qui extrait, qui extirpe du champ du droit le troisième mandat. Ça veut dire que donc c'est sa volonté. monsieur le Président, le troisième mandat n'est pas votre volonté. Parce que le premier n'a pas été votre volonté. Encore moins le deuxième. Et le troisième ne sera pas votre volonté. Ce sera la volonté du peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais a déjà dit non au troisième mandat. Vous ne le ferez pas. Vous le ferez pas. Moi, je ne parle pas de troisième candidature. Troisième mandat, il ne le fera pas et il le Mais il l'extirpe aujourd'hui du champ du droit. C'est ce qu'il a dit. droit rek moo tax muy daw ci BDN bi ma wàcc sa moto xaar cortège am jàll droit mooy tax mu daw ci autoroute bi xalif li général ñu xaarloo ko mu daal droit rek a tax léegi mu troisième mandat bi du droit il faut qu'il arrête alors qu'il est encore temps on a du respect pour lui tant qu'il a du respect pour nous tant qu'il a du respect pour ce qui nous réunit mais il montre qu'il n'en a pas et ce droit-là dit que ces deux députés ne peuvent pas aujourd'hui être en garde à vue. Ils ne peuvent pas aller en prison. Il n'a pas le droit de les retenir. Donc, ne les gagnez. Nous sommes des gens très responsables. Ici, tout le monde. Et c'est dans le communiqué de Yelu Askan. On a dit qu'on condamne la violence dans toutes ses formes. Madame Maïmouna Bousso bi muy wax moom la tàmbali mais gis nga Sénégal ku fayu nu xam mais xamuñ ku dóore lépp loo gis am na lu ko indi mais il faut pas que mu utiliser prétexte boobu pour ñëw ñu day décapiter un parti parce que c'est le même mécanisme entre 2012 et 2019 qu'il est en train d'emprunter entre 2019 et 2024 il ne décapitera aucun parti ici dans dans l'opposition Parce que ce qu'il oublie, mooy entre l'opposition est devenue un bloc un très grand bloc soudé koo laal jàppal ni laal nga laal nga kenn du toog di xaar mu laal la koo laal ni laal nga keneen donc il libère ces deux députés ensuite comment il pense être plus intelligent que nous réunis Pensant que s'il retient ces deux députés, parce qu'il y a demain une motion de censure, pour que oui, nous ne pas participer au vote. Même si nous avons une procuration, nous avons le président de l'Assemblée du Tidef. Pour dire finalement, la motion de censure n'est pas passée parce qu'il y a tant qui ont voté tant contre. Mais, où est-ce qu'ils pensent qu'ils se wax ci da ci gàtt mooy l'opposition est prête et ne peut plus laisser continuer ces forfaitures ces forfaitures qui veulent que progressivement il engage lu mu tegul contre ay citoyens sénégalais yi nga xam ni amuñu benn toor lu dul wax li ñu xalaat wax ni ñu ko xalaatee na libérer Massata Samb na libéré Mamadou Niang ce sont des députés et bu dëgg moo war a tax waxloo ku ne xam nga ni leen du dëgg et ku deful dëgg yaa ngi def leneen te ku waxul ci dëgg yaa ngi protéger leneen te ku ñu xam-xam rek la ñuy wax donc le

de l'extirper ou de l'extraire du champ du droit dem États-Unis di fa wax loolu kookali mais ñoo ngi koy xaar Sénégal ñoo ngi koy xaar Dakar je vous remercie. Je donne la parole à Cheikh Tidiane Dièye. merci beaucoup président Khalifa maa ngi topp ci Khalifa topp ci Déthié niyu leen yéen journalistes yi niyu askanu Sénégal waaye rafetlu et sant yàlla ci bi nga xamee ni xeex ngeen yéen médias yi ñun xeex nañu leader politique yi askan wi xeex na Pape Alé ci boppam xeex na ak ay avocat am ak yeneeni journaliste ci bitim réew ba ñu jox ko liberté mu génn dem ci këram bu ngeen déggee ni xalifa waxee tout à l'heure ak ni Déthié waxee ak sans doute ñuy topp ci man ni ñuy waxee ngeen xam ni am na lu soppiku am na lu changé ci ton bi ndax l'heure est grave le Sénégal n'a jamais été aussi menacé aussi risqué aussi piétiné et aussi vulnérable fii ñu toll tey ci senegal képp kuy dund ci réew mi te yëg lii fi nekk ak li fiy dox ak fi mu jëm war ngaa am lu la jaaxal bu fekkente ni kuy jaaxle nga nga xam ni li wolof di wax lii raam ci ñag bi la jëm lii romb na ñag bi ba mu ngi ci biir kër gi loolu nag dafa jot ñu jóg gàttandu ko fànq ko ndax bu doon senegal mbaar la nga ne kenn yi koy téye maay pilier yi Macky Sall démantelé ba yàq na dindi na ko ba mbaam mi mën naa mab à tout moment tey li nekk ci biir prison yi ci ay leader d'opinion journaliste activiste homme politique wala leneen du ma ne masu su am de waaye ñu dajaloo noonu ci benn moment xëy na gëj nañ ko fee gis bu dee mas na fee am ci régime Macky Sall bii li ñu fiy salfaañe ci liberté li ñu fi topp parti politique leader politique bundu xataal démantelé ci Macky bii la am dix ans yoo xam ni yàlla dey xam naa ni ku bëgg Sénégal la waaye yàlla teg na Sénégal nattu depuis 2012 ba 2022 bii ñu jëm ak ñaari at yi ciy teg benn at ak nangam sax ngir mu jeexal nattu boobu ci lañu nekk ndax président mënul yées koo xam ne yéenewuloo sa sa askan sa njaboot sa réew jàmm ci benn côté côté boo jël rek Macky Sall démantelé na pilier yi nga xam ni moo yoroon Sénégal pervertir droit ak loi détruire ko complètement dëkkee nga ko fiy wax bu demee bay toog naan sama décision kese la loolu mooy yow da nga personnaliser le pouvoir privatiser ko loolu la ñu tuddee despotisme Montesquieu mooy wax ni despotisme pour mu schématiser ko dafa ni mu ngi mel ni nit ku ñëw ci garabu mango bi garab gi ñor mango yi rafet nga xeemeem ko waaye fuqale ak bëgg lekk tax nga jël semiñ gor mango gi lekkandoo lépp mu jeex dooto am mango despot mooy loolu nga jàpp ni lépp lu fi nekk rek ci yow la baax te boo décidé rek mu jëm ci yow loolu mooy li fiy dox scandale yi tegaloo scandale politique scandale judiciaire scandalu côté bu ne waaye beneen yokk ci tey du lu ñu bett parce que gis nañu ni 2012 ba tey scandale sur scandale au plan économique violence bii ñu wax sànq Xalifa wax ko de ca jaar ci dañu waxul ni violence économique dafa am violence financière dafa am parce que réew mu amul lu dul sa sa as néew la nga for ci say lempo ak bor ya nga lebi bitim réew la askan wi cotisé jox la nga def fonds boo xam ne da nga naan damay lutter contre Covid 19. Covid 19 yóbbu na ay nit seen njaboot ñàkk leen Covid 19 tas na ay kër Covid 19 tas na ay entreprise seeni borom ñàkk seen liggéey askan woowu dajaloo génnee ci budget réew mi doyul ñu lebi bitim réew loo xam ne mu ngi suñu ndodd doyul ñu ne sénégalais yi cotiser leen ñii fi toog ñu ci bëri dugal nañ ci seen stuut ñu jël fond bi teg ko muy mille milliards tey lan la ñu jàng lan la ñu gis mooy Cour des comptes. kenn mënul laam-laamee liggéeyam kenn mënul laam-laamee sérieux kenn mënu ko accuser ni dafa faral opposition parce que cour la bu nekk foofu ci biir état bi te liggéey bu mucc ayib la ñuy def ñoom ñoo génnee loo xam ne lii lu lu jéggi dayoo la xel sax mënu koo nangu ci loo xam ne nit ñaa ngay dee ñu génnee alal ndekete yoo alal jooju génneewuñu ko woon pour dimbali askan wi waaye dañ ko génnee ndekete pour enrichir ñu nekk ci seen biir ak ñoom ca kaw ba ca suuf kenn ci ñoom desu ci ku jëlul sa wàll muy un scandale saano ci ñoo xam ni ñi dañu jaayoon ni danañu def gouvernance sobre et vertueuse ba ñuy ñëw 2012 waaye gouvernance su Macky Sall de ni ma koy tudde moom mooy gouvernance jalu muus saa yoo waxee rek am loo daj chaque jour scandale bu bees mais bii dafa jéggi dayoo ba tax sénégalais bu nekk nga war a xam ni nag war nga cee am taxawaay war nga cee sa xol metti ci waaye nga jóg xeex ko parce que sa alal la man maa ngi sant yàlla ba nga xamee ne suñu doyen bii Habib Habib visionnaire la macha allah yàlla daf ko defal sutura parce que bu fekkoon mu nga fa ba tey lii dafay comptable ci la xew parce que dañu naan ko yow kat yaa nga fa woon toogal fa opposition fekkee nga waaye biñ ko woowee ne ko dugal ci commité de surveillance la comité de suivi comité de suivi boo xam ni bind nañ ci wax nañ ci waxati nañ ci ba ñu ko tegee fekk na ñu jàllale marché yu tappale yi ñu bëggoon jàllale yépp dañu def seeni luxóor ba doyal duy seeni poche ba mu fees ñu doog indi comité naan léegi nañu suivi ma ne leen lu ngeen di suivi ba ngeen joxee mbir yi ba pare Habib dafa dugg génn ba mu gisul lu mu xam ñëw fa pour transparence ñëwoon ci biir pour bon gouvernance ñëwoon pour ñu sàmm alalu réew mi mu gis ñuy tappale di ko jéem a di ko jéem a euh, wàccee dayoom mu bàyyi leen fa dem yoonam wax ko communiqué ci ne bàyyi naa waaye may am lu ma metti ñun ñi am nañ ko général François Ndiaye ma ñu jël muy muy muy général de l'armée di nit ku baax ku crédit ku taxawal réew mi nekk en fonction militaire boo xam ne yaa ngi en activité sa der masul gàkk masuñu laa dégg ci lu lu ñaaw ngir bëgg ñoom couvrir seeni luxóor ñu jël ko teg ko fa ni moom dana surveiller parce que militaire la te booba xam nañu ni dañu ko bëgg def rek écran ak parapluie waaye ñu ngi def la ñuy def ba tey turam mën a gàkk wala muy mën a ànd ci lii ñu def plus de sept cent quarante milliards yi nga xam ne dépensé nañ ko diggante deux mille vingt ak deux mille vingt et un pour commencer bëreet rek am na ci vingt milliards yoo xam ni ba ko Cour de comptes saytoo amul lu mu laale ak Covid ak lu mu taqee ak Covid ñoom ñoo xam fu ñu ko dugal vingt milliards ñaata école la ñaata l'université ñaata dispensaire ñaata nangam ñaata nangam ñaata nangam kenn xamul lu mu toll fourage daal di daal di xëddeen fa la jaare lépp jaare fa tabbi tabbi ñu gis ay entreprise yoo xam ne tey yaakaar naa ni war nañu laaj Cour des comptes ñu gën a saytu ba dem seeti ñooñu ña ca nekk en réalité ak ñu nekk seen ginnaaw parce que bu ñu la nee am na ñaar wala ñetti entreprise yoo xam ne benn nit a ko moom am na lu tolloo 15 milliards ci ay marché yu ñu ko jox 15 milliards du xaalis bu ndaw te ba ñu ko seetee ay agence de voyage laak yu kenn xamul xaalis boobu war nañ koo seet gis nga mbir mii fi am bu ma la ko toppaloon rapport bi yaakaar naa yéen ñëpp jot ngeen ci médias yi jàngat nañu ko jarul sax ñu ciy sore waaye li ci am rek mooy taxawaay bi ñu ci fas yéene am ñun en tant que opposition ndax dañu gëm ni piller les deniers de l'État bi fi Ousmane Sonko waxee ni train express régional bi ëpp na mille milliards déjà ñëpp choqué ni mille milliards fan lañ ko fi mën a dugale diggante Dakar ak jam Diamniadio waaye ba ñu gasee tuuti la ñu gis ni ndekete Sénégal sax taxu koo jóg bëggoon yëkkati Alstom ba ca France ca chef am Macron ni ko fexeel ba créer marché boo xam ni da nga ko jox Alstom mu jóg ci mu jël lu ñu am lu ñu amul dugal ko fa pour suqale ay français ñëpp tafoon seen gémmiñ ci train boo xam ni sax mën nga cee teg bët xëy na waaye lii nga xam ni ëpp na 1000 milliards te nit mënu cee teg bët ab ba nga koy wax ca ba muy génn mu ne ceeb bi rek ba nga xam ni tey surfacturation yi Cour de comptes wane na ko ci lu kenn mënul laam-laamee ëpp na 3 milliards rien que ceeb bi loo xam ne lii les prix du marché dañ ko fa ni ñukk woo ay nit ni leen fu muy jaree cent cinquante wala deux cent vingt cinq ñun danañ ko jënd ci yéen deux cent soixante maanaam yow ka lay jaay si yaa ko naan danaa la may xaalis ci xaalis boo xam ne askan wee ko moom kenn mësul gis li scandale la boo xam ni nag ma daaneele foofu du lu ñuy bàyyi rek mu jàll Cour des comptes wax na ministère de la justice na ci def taxawaay na ko saytu na ko seet nañu ci topp képp koo xam ne war nañ ko cee topp ñun ñu yokkal ci cour des comptes ne ko ña nga xam ni ñoo ne ca kaw joxe ay ordre di les commanditaires bu ñu topp rek ay lampiste ay jàpp naan daaju ministère sangam def na déedéet nañu def ay enquête ñu ngi laaj aussi parlementaires yi ñu taxaw ci ñu def ay enquête ca kaw président de la république ba nga xam ni moom la goroom nekkoon ministre di développement communautaire joxe ceeb bi ci lu dul amul lu yenwul maanaa ñu commencé ci moom ba képp ku nekk ci suuf ka takk rek ci ñoo xam ne ni jël nañu askan alalu Sénégal ñu teg la ci yoon yóbbu la ci justice buñ ko deful tey ëllëg bu soobee yàlla 2024 soreetul te gëm nañu ni 2024 Macky Sall dinañu jël pouvoir bi ci moom président bi nga xam ni incha allah ñu koy ñaan yàlla te di ci liggéey mooy yor Sénégal 2024 mu ngi fi toog ci taabal ji ci opposition sénégalaise bii lay jóge bu ñu ñëwee lu ñu leeralul tey ñoom incha allah danañ ko leeral du ñu def chasse aux sorcières du ñu teg lu dul yoon mais képp ku mës a jalgati wala nga jël un franc wu réew mi justice na la indi nga delloo ko ci biir keesu réew mi wala ñu yóbbu la fa ñu yóbbu sàcckat yi ak tappalekat yi ak corrompu donc loolu laa bëggoon yokk ko ci tey di leen sant di leen gërëm encore une fois yéen mbokki Sénégal et di leen ñaan ngeen taxaw temm takku préparé wu xam ni nag mbir mi jot na te dëkkee wax na ko xalifa wax na ko te ñun on est prêt et on attend que le peuple sénégalais pour ñu ànd ci liggéey boobu maa je vais donner la parole au président Baragaï qui a dirigé une délégation des députés qui est là présent bon il me regarde de gros yeux viens prendre la parole. Voilà, il parle au nom de ses collègues. Un petit message. Ah, d'accord. Merci, Président.

di nuyu conférence des leaders et je voudrais euh, à mon nom propre et au nom de tous les députés de la coalition Yewwi Askan Wi dire merci à la conférence des leaders jiitaloo leen ñu ba pare di ñu fakastal contrairement aux députés de Benno Bokk Yaakaar dicté woo leen ñu li ñu war a def assemblée nationale yabal ngeen ñu fa xam ni ay responsable ngeen fa yabal ngeen bàyyi ñu ñuy doxal et tey bi ñu génnee ci commission génn ci li nga xamante ni moom mooy plénière bi les sénégalais on su faire la différence entre li nga xamante ni moo doon am assemblée national ak li nga xamante ni moo nekk tey di fi am alors ñëpp xam nañ ni le niveau du débat a été élevé ci benn niveau boo xam ni ñoom ci seen bopp daf leen a jaaxal dañuy génn commission seeni collaborateurs ñooy ñëw di ñu dab ni li ñuy dund ren musuñu ko dund et loolu yëpp ci seen mbaax la ci seen coaching la ci li nga xamante ni mooy seeni ñaan la ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm au nom de tous les députés de la coalition Yewwi Askan Wi à mon nom propre et au nom de Massata Samb et de Mamadou Niang aussi ñoo ngi gërëm bu baax l'ensemble des 53 députés de Yewwi Askan Wi parce que taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu am ci mbir mi bi mu xewee ba léegi Massata sa famille sa famille politique Mamadou Niang sa famille biologique et sa famille politique kontaan nañ ci taxawaay bi bu baax a baax et ñu jukki ci ki nga xam ni mooy le président du groupe parlementaire biram Souleye jóg di ko sant bu baax di ko gërëm man nag li daal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf ma dal mës na wax ni dama tiit ndax réew mu amul justice naka la ci nit di dunde mais bu ñu xoolee li xew ci ñaari fan yi gëm nañu ne Sénégal amul justice comment est-ce qu'on peut prendre vouloir prendre ñaari député yoo xam ni ñu ngi biir assemblée nationale nga indi plus de deux cent cinquante personnes escadron bu doy waar ni par force danga nga leen di jàpp manu militaire yi il a fallu que ma dugal leen sama bureau pendant six heures de temps bi ñu ñëwee gendarme yi taxaw ci sama bureau ni dañ leen di jàpp ma informer la président du groupe parlementaire biram Souley député yëpp ñëw fekk ñu sama bureau ci la gendarme yi soog a wàcc pour dégager foofu alors bi ñu waxtaan ak ñoom ni leen on prend l'engagement que ni lundi ñu ñëw wala mardi à 10 heures danañu ñëw ils n'ont rien voulu n'entendre li ñu bëggoon a dégg mooy jàpp nañ leen manote leen toroxal leen sànni leen ci ay pic de la coalition Yewwi Askan Wi et même les députés de Wallu donc ñoo ci opposé wu ba ñoom ñu mujj reculer bi ñu demee aussi dañu jàpp ni comme ni ko président Déthié waxee député su fekkente ni ñun sunu mbalaanu kiirlaay bi amul lenn lum ñuy jariñ waaye jaratu ko nag wax fa dëgg yàlla un député en session ñu jàpp la taxañ la ñu ne déetewaay démb ñu interroger leen question yi ñu leen posé yépp ñu ne mënuñu ci répondre parce que dañu am mbaraanu kiirlaay te dañu nekk en session duñ ci répondre tey ñu ñëw taxañ leen fanaan loo leen fa démb war leen fa fanaan loo waat tey loolu yépp jàpp nañ ni jaay doole la mais duñu ci wet incha allahu rabbi et li leen intéressé rek am na ku ko wax sànq mooy motion de censure u deme bi ñaari député yi absenté ngir ñoom ñu mën a jàpp ni duñu mën a am majorité ngir daaneel li nga xamante ni mooy sa gouvernement mais jàpp naa ni aussi taxawaay bi danañu ko continuer parce que incha allah li nga xamante ni moom la ñuy def à travers suñu groupe parlementaire duñ ko bàyyi et li ma ci gën a metti aussi mooy cette motion de censure bi nga xamante ni dugal nañu ko bërki démb ñu convoqué assemblée nationale en respectant les délais on a introduit aussi beneen résolution pour que l'assemblée nationale puisse se réunir afin de nit yi ñuy toppee su règlement intérieur moo ñu ko may on a fait benn résolution déposé ko le lundi à dix heures sur la table du président de l'assemblée nationale il n'a pas voulu statuer là-dessus et loolu aussi jaaxal nañu bu baax a baax mais de toutes combat bi danañu ko continuer avec vous danañu ko continuer avec les députés de l'opposition ba yàlla may ñu ndam incha allah maa ngi leen di sant bu baax leen ko merci ko defee ak ni ñu fi jiitu di euh, wax ne suñu seen seen naatango Pape Alé Niang ñi ngi am mbégte lool ci ni nga xam ne bëre ngeen ak pouvoir bi ba ñu libéré ko waane ñun ñoo leen gën a kontaan ndaxte yéen da bokk métier mi waaye ñun ñoo ko jur ca Jolof moo tax li mu def jaaxaluñu di koy jolof-jolof yu yàgg ya bañ ba tëdd ci suuf ngir sa ngor moom la wone yal na ko yàlla dool dolli sàmm ak journaliste yépp maa ngi gis sànq tey je ne y a 333 ou 533 journalistes en prison à travers le monde du la mooy wane ne liggéey bi jeexagut ci la liberté de presse à travers le monde bu loolu wéyee dégg ngeen fii fan yi ñu wote fi li ñuy wax budget bu Sénégal ak premier ministre def fi li ñuy wax euh, déclaration de politique générale wala sax déclaration de rien général parce que vraiment il n'a pas dit quelque chose d'important ma bëggoon foofu rek wax ci tuuti lu gàtt alors messieurs les députés vous avez suivi le ministre des finances il a l'art de séduire c'est certain mais derrière cet art de séduire peut y avoir des incertitudes te loolu budget bi ci lu gàtt rek daf ko révélé mu wax ne budget de solution la mais ñun yaakaar nañ ne budget bi yokk difficulté ci Sénégal la bokk je parle sous le contrôle du grand économiste Koumbala alors li ma ci njëkk a wax mooy ay taux de croissance wax nañ ko et cetera bon mu ne Sénégal dana def dix virgule un pour cent maanaam yokk koom bi FMI na leen ñoom huit huit virgule sept la ñuy def moom dix pour cent yi muy wax waxu ko ci benn démonstration scientifique rigoureuse déclaration rek la def kenn ñoom danañ def dix pour cent bon mais c'est des trucs techniques un peu compliqués wax na sax ba ne dañuy changer waat euh, la base des comptes nationaux xam nga wax naa leen fii ne leen pour ñoom ñu man di gën a mën a leb dem nañ ba jigéen ñi nga xam ne dañ leen waroon a sutural mu ñuy jox ay carte ñu leen jox ay carte ñuy taxawaalu la ñuy liggéey dugal nañ ko ci base de comptes nationaux comptes nationaux wax naa ko fii bu dul benn du ñaar kenn weddiwu ko gumbala c'est vrai loolu lépp pour gën man di dem di leb pour gën a nërëmal économie Sénégal su loolu woyee nan ngay mën a wax ne yow sa budget bi baax na danga nga bëgg a mënal sa bopp te bërki demb sa premier ministre dem France dem di tàllal loxo di yelwaan pour ñu may ko cent milliards cent milliards de francs CFA xam nga yooyu bu buñ koy wax sénégalais yi day nekk loo xam ne lii day mel ni ay lépp te nit ñu duñ ci def attention muy budget naxay mbaay alors mais li ma ci bëgg a wax pour man moo ci ëpp solo mooy ministre bi moo wax de moo wax ci boppam mu ne lu tolloog ci téeméeri milliards ak ñaar fukk ak ñeent ak yu tegal may nañu ko ñi nga xam ne ay borom barke lañu am ay oto ci Sénégal maanaam kilifa yi ñi alal milliardaires yi borom barke yi ñoom Khalifa Sall ak ñoom Ousmane Sonko ñi nee nañ fu ñu jëndee essence wala ñu jënd gasoil ci at mi état du Sénégal may na leen téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci milliard ak lu topp essence. mais li ci gën a doy waar mooy lam ci taftal mooy yéen te ñun ñi nga xam ne ñoom oto xëy na boo calculer sax mutul million wala ci lay toll mu ne nag yéen baykatu Sénégal yéen ñi nga xam ne man ngeen fukki million wala lu ko ëpp jaay naa leen wax ma may de jaay naa leen juróom ñetti téeméeri milliards quatre-vingts milliards lu tax ma ne jaay naa leen ndaxte li mu def ci budget bi foofu quatre-vingts milliards yi mu wax mooy danaa ko jëndee ay machine jiw jaay leen ko danaa ko jëndee ay saret jaay leen ko danaa ko jëndee jiw jaay leen ko mais borom barke yi ñoom bien que ci réew mi la ñu bokk moom may naa leen li nga xam ne moom laa wax léegi mais yéen baykat yi yéen sero kenn toppatoowu leen waaw loolu loolu nan lañ ko mën a tuddee bu fekkoon ne am na am na am na ci droit penal dama naan crime budgétaire la nan ngay mën a demee cim réew ñi nga xam ne ñoo fi ëpp doole ñoo ñu jox lu ñu lekk wala ñi nga xam ne ñoo ci gën a néew doole du ñu jox lu ñu lekk booy defar sa budget ngay def budget borom barke yi bay budget ñi nga xam ne ñooy bay bay ñi nga xam ne ñooy paysans yi néew ju doole ji loolu moo tax ñun ci suñu xeex ñeneen danañ ko wax ñu ne gouvernement bii dañ ko war a daaneel parce que ñun loolu lañ mën gis nañ ne deful lu dul yoon ñu may ñi ci yoon ñu def motion de censure ñu ne yéen toppatoo leen baykat yi sàmm yi li ñu war a am amuñu ko nappkat yi li ñu war a am amuñu ko ci budget bi kon gouvernement bii na fi jóge waaye yéen baykat yi nag ñi nga xam ne yéen la ñu teg loolu lan ngeen di def. man loolu lu may laajte la ñun liñ man ci jàppale pour xeex ko danañ ko def ba ñëpp teg ci seen bët parce que c'est injuste alors ba boo gisee liitaru dawlin sax liitaru dawlin bala ko baykat di am il faut que mu jaay ñeenti kiloy gerte wala juróom pour mën a jënd liitaru dawlin ci dawlin bu ñu wàññi mais ñëpp xam nañ ne wàññi bi doxul boo demee dawlin am na ci gox yoo xam ne ci biir Sénégal bu ñu waxee mille deux centimes maanaam téeméer ak ñeent fukk ëpp na ko kon da nga jaay léegi-léegi juróom wala juróom benn liit euh, kilo gerte ba juróom-ñett sax nga soog a maanaam litre dawlin ceeb bi la même chose pour que nga mën a am cent kilo ceeb ci prix normal bi ñu wax rek da nga jaay cent kilo gerte ba pare wuti ab junni boo ca teg mais ñëpp xam nañ ne boo demee tey ci àll ci ci kaw gi kilo ceeb day dem ba jar quatre cent francs donc da nga wutiwaat lu mel ne ñaari junni tegaat ko ci yow baykat bi soo ko mën a am cent kilo ceeb yoo xam ne li nga yore ci famille xañ na boo koy lekk du mat sax weer ay euh, euh, euh, fukki fan ak juróom lay ma injustice yooyu moo nekk ci réew mi te il faut que nit ñi xam ko moo tax ñuy bëree di xeex di def yu mel ni kon nag yow béykatu Sénégal lii kenn leeralu ko wante waa yeewi askan yu bëgg nga yeeweeku ñoom ñoo la koy leeral ngir nga xam ko ëllëg si biir nga xam buñ jógee taxaw lan moo tax te ñoom ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi malgré li nga xam ne lu métti lañ leen di def buñ jógee dem élection ci yéen la ñuy compter pour ngeen wotal leen loolu dafay war a jeex te yaakaar naa ne bu seen bopp di ubbeeku ci mel noonu da ngeen xam ne ñun suñ taxawaay mooy seen njëriñ mais du pouvoiru Macky Sall li ci bëgg a dolli mooy ci wax nañ temps yi affaire ay secret défense et consorts mais ma bëgg fàttali quand même Latif Coulibaly seen naataango 2011 lu mu def avion commandement présidentiel chef suprême des armées nga xam ne fa la euh, secret défense yam dafa siddi avion bi siddi xam nga siddi machine yeeg yëpp mu génn ko teg ne euh, président Ablaye Wade lii la avion bi nangam nangam nangam nangam et waaw mais loolu lan moo ko gën a grave ci secret défense mais lan la ci président Wade teg dafa woo rek son commandant ki yore avion bi ne ko tontu ko mu tontu ko mu jeex moo naan démocratie day toll foo xam ne fii yëfu ndaanaan la mais malheureusement ki nga xam ne moo nekk ci réew mi ci bopp réew mi xamul loolu du ndaanaan beneen bi foofu laay jeexale wax naa leen fii na leen Macky Sall dafa am problème de cerveau dégluwu leen il faut ngeen seet ko bu baax da am problème de cerveau li ci mujj mooy affaire u réel ñeneen danañ ci ñëw mu yeewu dem fee ca maire am xaw ma waaw ñaari association maire rek ñoo fi cetera ñun ko ko wax nañu def association maire lii Ousmane Sonko ko jiite ñun c'est pas association des maires association rassemblement des élus locaux du Sénégal ñëpp a ci bokk mais moom xamul sax ñun lan la ñuy def rax ci dolli mu dem nag ne ministre des collectivités territoriales na nga jël mesure yu baaxee il faut être ferme et cetera il sait même la compétence de ces ministres est-ce que ministre des collectivités territoriales moom mooy reconnaître les associations en tant que président de la république muy def des confusions entre le ministre des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur moo tax ma ne leen ngeen seet bu baax il a un problème de cerveau mooy déclaration yi muy def fii bii ci ko léegi aux États-Unis et tout ça euh, y a y a quelque chose qui cloche daal à son niveau mais ah ñun ñi ngi fi on lutte pour la démocratie pour les libertés et pour le progrès du Sénégal maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. merci beaucoup Habib. Je, je donne la parole à Cheikh Youm. Cheikh Ahmed Tidiane Youm Bonjour, mesdames, messieurs les journalistes. Avant de vous expliciter la situation de nos camarades illégalement gardés à vue au niveau de la division des investigations criminelles, il me plairait de vous parler en quelques mots de l'Assemblée nationale. Ici présents les députés, de la coalition Yehu Askani, Ces députés qui représentent le peuple, nous leur disons encore une fois de plus merci. Le travail qu'ils sont en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale a fait perdre la tête au président de la République, Macky Le doyen Habib venait, vient juste de le rappeler. Lors des travaux en commission, ils ont été exceptionnels. lors des plénières encore plus exceptionnelles. Lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, ils lui ont fait comprendre que M. Amadouba incompétent. Ils lui ont clairement montré qu'il était non seulement incompétent, mais qu'il n'avait pas assez de courage. Et pour tirer, comme on le dit à travers les spectacles, le rideau, ils lui ont servi une motion de censure. Croyez-moi, ces jours-ci, donc, les députés de la coalition Yves Kanui, nous leur tirons un chapeau bas. Merci pour votre efficacité, Merci pour le travail que vous êtes en train de réaliser au niveau de l'Assemblée Je ne terminerai pas de parler sur l'Assemblée nationale sans parler de l'épouvantail national. La mollesse de l'épouvantail, vous comprendrez qui est l'épouvantail, j'imagine. La momie, il finira par incendier ce pays. Doyen Abi parlait tout à l'heure d'un problème de cerveau du président de la République, mais je pense que ça devient une maladie générale chez eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cet épouvantail, il ne sait absolument rien faire. Revoyez les images de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général n'arrête pas de lui écrire des mots parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il n'arrête pas de se pencher à côté de lui pour lui demander ce qu'il a à faire. C'est triste. On en est arrivé à ce point-là. Mais cela ne nous surprend pas du tout. Aujourd'hui, il n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Et celui qui est désigné comme président du groupe parlementaire ne l'est pas. Même, je peux même vous dire que le premier ministre n'est même pas le premier ministre. yaa a un faucon li wolof di wax mooy buur mooy bummi mooy waay soosu nga xam ne ni tur bi sax bëgguma ko tudd te nee nañ xaw ma ngoom la sant xamul mu sant kooku moom mooy président assemblée nationale moom moy président groupe parlementaire te kooku jàppaleen ne mooy premier ministre li am assemblée nationale ñu dem ba nga xamante ni Sénégal Sénégal dëkku Seydi Hadj Malick Sy dëkku Serigne Touba Khadimu Rasoul dëkku Baye Niass Maam Limaamu Laay ak les hommes d'État yu ñu fi xam ñoom Léopold Senghor ñu ñëw ba ñu mel noonu di am benn kilifteef benn doole bi ci assemblée nationale ci pencum ndaw réew mi war nañu xoolaat suñu bopp war nañu xoolaat suñu bopp bu ñu demee ba ay député jigéen ñu ne leen yéen seen rôle seen cër mooy toog leen di tàccu di saaga war nañu xoolaat suñu bopp bu ñu demee ñu war a commencer législature bi mais dañuy wax violence mais nguuru Macky Sall mandarga bi mais violence la léppam lu mu def violence ci violence la ko teg mun a nekk violence économique wax nañ ko sànq violence sociale violence politique bu ma déggee ñuy wax euh, les les députés de la coalition Yewwi Askan Wi dañu violent dañuy saaga rek mais man j'ai l'impression que li ñu jàpp ne feebaru bopp boobu dafa généraliser ci ñoom mais loolu daf koy firndeel mais le président Macky Sall maa ngi ko doon wax ci yoof lan la commencé législature bi mooy violence jël jigéen ak jigéen fi ko sunu borom teg jigéen lu mu représenté ci askan bi mu jël jigéen wërloo ko Sénégal ñu di ko xalamal di ko woyal mu di ñu saaga di ñu yàq lu nekk moom mu dem ba xam ne kooku gañewul moom mu def ay subterfuge am ba sàcc élection yi ñëw ne ko waxoon ko ne bu ñu demee ba gagné gagné bi nag mën na nekk gagné normal comme mën a nekk gagné sàcc mais comme mënuloon gagné gagné normal mu sàcc donc lépp gagné la ci gagné la koy tuddee mu ne ndaw soosu yow de yow laa waxoon yaay nekk le président de l'Assemblée nationale des jours des semaines muy jàll kooku def ci boppam ne mooy moom mooy nekk président de l'Assemblée nationale waaw ñu ñëw ba session bi war a commencer quinze minutes avant ñu woo ko ne ko finalement doo ko nekk épouvantail laa fay teg mais loolu lan ma ko gën a nekk violence am dafa yaakaar violence ay dóorante la mais c'est d'une violence inouïe et yéen ñëpp gis ngeen li xew cette brave dame bi ko waxee loolu mais àndatul woon ak sagoom ci jigéen nga ne da nga ormal jigéen da nga teg jigéen place am ci loolu jël groupe jigéen ne leen soxla soxlawuñ leen lu dul ngeen di saaga di ñàkk orma kilifa diine yi waaye loolu bettuñu ndax ñooñu dañoo matérialiser li Macky Sall waxoon à l'aune de son mandat il avait simplement précisé que les chefs religieux n'étaient que de simples sénégalais ordinaires loolu la gëm jógu ci loolu la gëm ba léegi jógu ci te li mu gëm jógu ci lool la xamal ñi mu àndal ci it ñoom loolu la ñu gëm moo tax nag ñu war a jóg taxaw xam ne kii jiite réew mi ci taal ko la jëm parce que xam na ne askan wi duñ ko bàyyi mu présenté waat une troisième candidature pour mu ñëw ci suñu camarades yi nga xam ni nii dañ leen a garder à vue illégalement au niveau de la division des investigations criminelles li xew assemblée nationale xëy na soxlawul ñu di ci ñëwaat yéen ñëpp gis ngeen ko donte man personnellement j'ai été très choqué j'ai été surpris par les petits esprits gis nga Sénégal dañu war a bàyyi di wax ci émotion Serigne Pape Malick si dafay wax ni Sénégal suñu lay tooñ dañuy jël seeni loxo nëbb seeni bët jël seeni baaraam fatt seeni nopp boo fayeekoo nag ñu takk rajo yi amee la et c'est exactement ça ndaw soosu bi muy wër di saaga député yi booba ana les émotions ñi ñi ñi nga xam ne ni dañu mettre en avant seen émotion fan la ñu nekkoon l'épouvantail il était où la momie il était où mais ñoom ñoo ko xamb la dame victime là en réalité cette pauvre dame c'est une victime ñoom dañ ko def comme chair à moom ak ay morom ñu ne leen de leen saaga xas leen leen wax leen leen lu leen neex bu ñu réagirul nag ngeen xool ci ñi nga xam ne nii mooy waa pureté euh, Déthié wax na ko ki Sall li mu waxoon il va réduire l'opposition à sa plus simple expression Il a essayé, il a même parvenu à démanteler certains partis politiques. Et depuis plusieurs années, il laissait avec le parti PASTEF. Jusqu'à présent, il n'a pas levé le pied. Il s'est dit, il va s'y mettre pour démanteler le parti pur. Mais c'est parce qu'il a absolument rien compris. Macky Sall ak ñi mu àndal seen fukk mënuñu démanteler parti pur li ñuy def nii yëngaluñu mais nag na xam ne lu mu ko jaralit jaral nañu ko na def lu ko xelam may ñu nit ñu def lu ñu suñu xel may am na loo xamante ne nii na xam ne duñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg naka la mën a ne dafay jàppalu ay député yoo xamante ni dañu xeex ci hémicycle bi assemblée nationale mais ñaata yoon la xeex foofu am est-ce que le procureur s'est s'est déclaré compétent parce que l'épouvantail a dressé un procès verbal extraverti procès verbal boo xam ne nii ay kat ci kese la li xew jëlu ci waxu ci dara lu dul lako neex moo ji Massata Samb dafa taxaw ci euh, euh, perchoir bi ba mu neex ko rek subitement nee na subitement subitement mu wàcc rek pes ndaw si mais xanaa sax xale yi feragul yi doon seetaan télé xam nañ ne loolu du dëgg Massata Samb ba muy wàcce mais ndaw si moo tax mu wàcce moo ko wax li tax mu wàcce donte leader yi wax nañ ko amul kenn kuy légitimer violence waaye bu ñu la tooñee mais bul xam ki ngay tooñ bu demee ba sës nu muy feyoo yow del tooñ rek dëkk ci waaye bul xam mukk ki ngay tooñ bu demee ba sës nu muy feyoo heure bu feyoo nag day metti non ñooñu xeexoo ci assemblée nationale góorante moom mu yëkkati chaise sànni leen mais une chaise c'est une arme c'est une arme et pourquoi l'épouvantail n'en a pas fait part dans son procès verbal waxu ko benn yoon waxul saaga yom doon saaga en commission waxul saaga yi mu doon saaga ci biir plénière bi waxul ñàkk orma bi mu ñàkk orma sëriñ Moustapha te foofu danaa ci wax tuuti mais ndaw sos du Serigne Moustapha rek la waxal bépp kilifa diine la waxal bépp kilifa diine la waxal waxul rek Serigne Moustapha si moo tax kilifa diine yi ne ñoom ñëpp ku ci nekk jog xamal leen ne lii ñu bëgg mu am duñu ko nangu te du fi am Massata Samb ak Mamadou Niang dawuñu benn yoon wax naa ko waxaat ko waaw kii daw mooy xanaa ki nga ne kaay ma convoqué la nga bañ ne du ma mais ñoom convoqué wuñ leen yóbbu wuñ seeni kër ay mandat d'amener mais rien du tout dara amu ci ñu xeex assemblée nationale ñii gaañu ci ñu am kenn ki am certificat médical avec ITT de dix jours keneen ki am certificat médical avec ITT de vingt et un jours ñu toog seeni kër di noppalu ñuy euh, détaché seeni escadron de gendarmerie euh, de police ne nañ leen war ci dëkk bi mais qu'est-ce qui était plus simple d'aller les convoquer ne leen yéen am na ku leen porter plainte ñëw leen wuyu mais defuñu loolu mais li gën a graaw ci ci ci affaire bi moo di ñooñu bi ñu demee ba retrouver seen santé à un niveau bien considéré mais ñu dem defi seen liggéey mooy dem assemblée nationale fekkee déclaration de politique générale mais assemblée nationale naka la fa le ministère de le ministre de l'intérieur war a envoyer ay policiers wala ak ay gendarmes ñu war ne dañuy nekk ci couloir yi pour jàpp benn député mais vous vous rendez compte de la gravité de la situation bi ñu tollu Sénégal amatul loi Sénégal benn loi moo fi am mooy le droit Macky Sall de ci wax na ko sànq li ko neex mooy am li ko neexul du fi am loolu nag yéen ñi ko fal ne man day voté wul ma ko woon yéen ñi ko fal ak ñi ko falul xam ne ne loolu moo am actuellement Sénégal Macky Sall lu ko neex parce que député yi ñu jàpp garder leen à vue illégalement ils ont été entendus hier de 10 heures à 19 heures Et je n'ai rien contre les éléments de, de, la division des investigations criminelles. C'est des gens résumés. donc te it ñoom instruction la ñuy xaar bu ñu leen joxee instruction bu ñu bokkee ak yow ndey ak baay sax danañu appliquer instruction bi loolu il faut ñu comprendre ko ci ñoom it ñoom li ñu leen wax la ñuy def mais kan moo leen di wax est-ce que xam ngeen ne jamono bii ñu toll du député du ministre du kenn kenn mooy joxe instruction mooy Macky Sall bi ñu leen dégloo démb PV ba dara newu ca dara newul ci PV bi parce que ñoom dañu bëgg ñu def aveu te ñoom it duñu ay xale ay mag yi jëmm lañ ay député lañu pourquoi ñu war a def ay aveu ce sont des députés boo leen bëggee dugal fenn fi mais dañ mais da ngay lever seen immunité parlementaire de ce wax na ko pourquoi ñu bañ demander levée par immunité parlementaire ou député yooyu ñu bëgg leen forcer ne leen def leen aveu démb amuñu li ñu bëgg tey ñu commencé waat ci suba encore ñu ne woon danañ leen présenter au procureur tey ci suba ba fi ma fay jógee kenn présenté wu leen waaye nag nañu xam ne am na lu ñu dootul nangu xaw ma kande waaye parti pur dootu ko nangu dootuñu ko nangu ñu nangu Macky Sall ne def ñu néewal doole donte mënu ko mënuñu néewal doole loolu lañu dul nangu te ñu ngi koy xamal ne ko ñii suñu mbokki député yooyu na leen tëj bu leen tëjee askan bi dina jël responsabilité am kooku lu leer la lu mu ko jaral ci dossier bi jaral nañu ko du menace du dara waaye dat yi dafa am foo xam ne nii gor soo koy puus di puus ba mu sës rëkk ci mur bi boo deful nank dana retourner ci sa kaw te nee nañ ko combat bi bu mu koy sànq ne troisième mandat bi ce n'est plus un problème juridique mais vous vous compte problème juridique et pourtant moom moo fi def benn référendum yàggul ci ay at ci gannaaw mobiliser ci milliards yu dul jeex envoyé ces ces faucons ñu wër Sénégal yëpp wax leen ne leen ñaari mandat moo fi am ñetteel mënatul am mu wàññeeku tey askan bi lañ fi nekkal wasalaamualeykum wa rahmatullah merci beaucoup il <coughs> Attends, il y mbokk yi ñu ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp fas yéene aborder quelques points rek ci waxtaan wi tey nag duma sori ci débat économique bi kon tey am na solo daa ñenn ci ñu jiitu wax nañ ci duma sori ci scandale yeeg musiba yi fi am ci këpp alalu réew mi wax nañ ci it ak yeneen ak yeneen yu mel noonu yoo xam ne yu am solo la ndax yàgg nañ cee àddu ba askan wi yëpp xam lu ci suñu position te luñ ci wax rek teg nañ ko ci xam-xam ak ci ay document ak ay chiffres yu leer defe naa kuy Sénégal rek xam nga lan mooy mbébétu yeewi askan wi ci réew mi te mbébét boobu dañ ko dañ koo lal d'abord ci càmbar gi ñu càmbar réew mi nu dañ ko yoree ci yorin gu bon ba mun a wax sénégalais lan moo tax tey mbay mi suuxee napp gi suuxee càmm gi suuxee industrie suuxee ak yeneen ak yeneen te loolu mooy réew réew du ay tali ak ay stade réew koom-koom la d'abord koom-koom mooy meññ loolu boo ko amul koom-koom boo ko amul ba mun a meññ loolu da jël say avion di wër rek di leb ba tey daanaka leb nañ lu ëpp lañ ñu mayoon ñu war koo mun a leb kon tey du ma sori ci loolu donte ci sama conclusion dinaa ci wax as tuut li may gën a waxtaanee ci ak yenn mbokk yi mooy tolluwaayu réew mi ndax sénégalais bu nekk ci mu toog nii xam na réew mi fum mu toll ak li nga xam ne mooy liy yot réew mi léeg dina toog xaw se am tuuti sikki sàkk ni peut-être am na lenn ci sénégalais yoo xam ne xamaguñu tolluwaay réew mi ak li nga xam ne mooy ay danger yoo xam ne ma ngay raam wala yegsi na sax tey na ci loolu rek laa bëgg a waxtaan ci benn ci poñ yooyu mooy li nga xam ne xamuñu ko woon ci réew mi wala du woon loo xam ne dafa lalu rek toog ñu koy gis bës bu nekk réew mi yàgg na am jafe-jafe réew mi am yàgg na am yëngu-yëngu waaye li ñu tàll tàmmoon di xam mooy ci ay jamono la am waaye ñëpp dañu jàpp ni Sénégal réewu jàmm la ñu am lu rëy loo xam ne ñu jiitu ci réew mi def nañ ko ci mooy ci wàllu diine muy ci wàllu politique ndax nag réew mi ñun dañoo ñëw fekk ko fi dañ ko doon danañ ko dodd fekk ko ci jàmm loolu dafa am ñu ko dox ñu ko liggéey ci wàll politique ñi njëkk a jël politique ci réew mi ba ñu jox leen indépendance seen yitte bi gënoon rey mooy nu ñuy def ba tabax li ñuy wax nation nation ak état bokkuñu nation mooy nit ñi ci seeni waaso seeni xeet seeni gëm-gëm yàlla def ñoom ñëpp ñu bokk benn réew nu ñuy def ba ñoom ñëpp nag ñu am bennoo état nag mooy li nga xam ne moom lañu teg pour mu doxal ñaar yooyu bokkuñu seen yitte bu njëkk mooy woon lu ñuy def ba tabax nation ba kenn du fi tudd xeet wala diine wala région boo dëkk wala yu mel noonu seen ñaareel yitte doon nañ tabax état bu dëgër boo xam ne day dox ci ay règles ñu xam ne lii mooy état nii lañ koy doxale fii la yem lii nga moom lii moomoo ko lii mooy sa sañ-sañ te loolu def nañ ci liggéey bu rëy rëy rëy kenn neewul mat na de waaye bàyyi nañ ñu fi héritage boo xam ne bari na réew gu ñu wërta amu ko ci nation ak ci état jamono jii nag danger bi gën a nga xam ne mooy yor Sénégal mooy yooyu la yàq nag moo tax ngeen dégg ñu naan ceeb bi fekk surfacturé nañ ko ci loo xam ne dañu ne woon pour pour xettali Sénégal la ci feebar bi bañ demee président Sarr fi ñu recevoir fàttali ku leen sama discours bi ma génnee nee na li ma leer ba leer mooy coowal séddoo séddoo bu jaarul yoon dina am ci ceeb beeg diwlin beeg yeneen ak geneen nee nañ leen luñ leen wax jamono dox na ba ngeen teg ci seen bët vidéo yaa ngi fi gis naa xale yi di ko partagé loolu moo tax tey ñuy wax ay problème contrat armement ndax dañoo jalgati ni nga xam ne noonu la réew di doxee noonu lañ fi bàyyi woon charte yi lu ñuy commandé dafa am fu mu war a jaar ñu bàyyi ko fi dem ci leneen loolu moo indi milliards yi ngay dégg ci jël nañ ko fii jël nañ ko fële tey ñu ne la Prodac suba ñu ne la 94 milliards gannaaw suba ñu ne la kenn xamul réew mi waaye bi ci gën garaw mooy violence permanente fitna bu sax daayiman boo xam ne tey Macky Sall saxal na ko te jubla jubla jubla ci nag képp koo xam ne nee nga bokk ma moom gis-gis ak ngay màndargaloo d'abord ci li ñuy wax violence verbale parce que fitna bi gën a métti dal bi gën a ci li ñuy ci nit léeg ci làmmiñ lay moo tax même diine daf ñu ne sàmmante ak seen làmmiñ ndax seen deret seen der seen réputation kenn ku ne bosu moroom dafa sacré ci moom tey rek ngay dégg Sénégal fi ñu toll nii nit mën a dem télé wala rajo dugg ci vie privée jàmm wax ci lu bon a bon a bon a bon a bon ko xam Sénégal du suñu aada du suñu diine du suñu état moo ne soo jëlee code lañ ci bind ci jëm ci loolu kenn xam lu mu toll pro procureur rek bu defoon liggéeyam kenn dootu ko def kenn dootu ko def jamono ji rek ñem gis ku procureur ne sama yoon newu ci te jamono jooju xale bu génn publier sur Facebook ñu ne la ñëpp dem dem ko ñu jël la tëj la kaso te li gën a suuxat village boobu mooy impunité bi mu wax mooy soo tafoo ci Macky ku la neex saaga la ku la neex xasal ku la neex waxal lu bon ci moom dara ñaareel màndarga violence boobu muy violence bu exprimé wu ci lépp loo xam ne neexul Macky Sall bu muy exprimé par exemple ci collectivité locale barki démb bi muy bi muy def sa journée la politique dafa ne moom la soog mu téye les fonds de transfert loo xam ne constitution ak loi moo ko teg ne état comme moom li muy dajale da koy dajale ci collectivité locale bu nekk muy TVA bi muy impôt sur les sociétés muy beneen l'impôt am na ci loo xam ne dañ ko war a delloowaat collectivité locale loolu du sañ-sañu président mu naan maa koy téye maa koy joxe rien rek que pour métital collectivité locale te soo métitalee collectivité locale xamal ni maire bi nga métital de ndax moom am na dépense waaye li waroon dem ci askan ngay xaj askan bi la ñu waroon defaree télé euh, tali walla ñu defar ko poste de santé wala ecole primaire ñu jox leen seen fourniture nga téye ko ngir politique rek parce que nee yaa ngi xeex Ousmane Sonko wala yaa ngi xeex Barthélémy Dias wala yaa ngi xeex Adama Sarr wala yaa ngi xeex ak ah, est-ce que am na lu ko ëpp ci violence wala ay Sénégal yu am sañ-sañ ñun dañu am loi boo xam dafa ne liberté d'association. tey presse bi am ngeen benn syndicat. waaw du sa mais saa su leen neexee. yéen bu mu neex ci yéen ngeen jóg ne dañuy créer suñu syndicat yoon moo leen ko may. la preuve sax am na administration yu bëri dañuy dégg service dañuy dégg kàpp dañuy dégg keneen ak keneen mouvement citoyen ñaata la woon. ñi ko fi njëkk a lancé benn lool tey ñaata mouvement citoyen ñoom société civile ñaata la woon ñaata parti politique benn fi amul Sénégal benn tey ëpp nañu trois cent et quelques partis politiques centrale syndicale CNTS lañ fi amul ñaata centrale la c'est la liberté d'association kenn ku ne am nga sañ-sañ ne man ak diw ak diw bu ngeen matee ñett rek am ngeen sañ-sañ ne ñun de ko gis-gis ñu nga sañ suñu association mu ñeme taxaw ne kii benn association moo fi am amul rek ci féer suñu neexee ñu def association maire kese yoon moo ñu ko may te ñuy dalal xelam association bi am na te mënu ci lu toll ni dara mais loolu lan moo ko gën a rëy ak ñàkk xam lan mooy attribution président de la république inculture des actes bi nekk ci président Macky Sall mosul am ci président Habib dafa wax problème mu bopp man dama jàpp ni ñàkk xam-xam la que saa su génnee ci feuille bi ko bindal war a taxaw rek wax dina wax lu ëpp wala lu matut loolu ñàkk xam-xam la xam nga nguur mun na dab nit nguur mun na dab nit kii nag nguur da koo dab nit moo tax tuutil mënta mën ko mënta daal dañ ko loolu nañ ko bàyyi rek menace ak violence sur les mouvements citoyens ñaata mouvements citoyens la ñu jàpp seen leader parce que manifester gars yi wala wax nga lu neexul gars yi rek dina lëpp ci kaso bi sur la société civile même société civile muccatu ci la ku jiite société civile wax ci immigration ñu ne ko rëpp yóbbu kaso menace sur la société civile wala violence menace et violence sur les réseaux sociaux parce que jàpp na ni li mu bëgg am peut-être ci média classique yi am na ko ba mu des média am na média yu bëri wax dëgg yàlla yu nekkul ci loolu waaye jàpp na ni am na loo xam ne mënul am contrôle ci loolu mooy réseaux sociaux nee na sax day déposer un projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale des réseaux sociaux xanaa loolu Égypte laa ko fi dégg ak Chine ak les pays ak te ñooñu ñëpp kenn mënul di démocratie gisuma benn pays bu ñuy woowee démocratie moo xam ne tey yaa ngi naan da ngay naj nit ñi ci réseaux sociaux loolu du violence violence sur les médias médias en tant que groupe tey am na ay groupe yu am ay problèmes yoo xam ne ñu ngeen di def lu ne te pourtant def nañ fi ay loi d'amnistie teggil groupe groupe média yi waaye menace également sur les journalistes ci pratique te li xew tey ki ñu bàyyi tey wane na ko. Mhm. te li ko yóbbu ci loolu gannaaw seen seen fan ak askanu Sénégal li mu jël fitam daa di xeex moo tax ñu bàyyi. li wax nii dafa am solo parce que Cheikh Ahmed Tidiane Diouf dafa ne Sénégalais yi dafa fàtte ni waxu kilifa diine ne léeg ak ni ñuy wëlbati képp wëlbati aussi information bi yi dañu gis ko fayu. ñoom du ñu gis ko ku tooñ bés bu ne Macky Sall bu ñuy def violence sénégalais yi duñ ko gis wala duñ ci wax waaye il suffit que ñu yëkkati suñu baaraam rek ñu ne violence violence sur les députés de l'opposition députés yi toog mën nañu seere ne bi ñu ubbee assemblée nationale ba léegi dégg bu ñu leen neex assemblée man mii di wax xam naa dina honorable Déthié Fall xam na ci dara assemblée da fay dugg ñu lay daggal ay saaga ci say waajur ba keroog ngay génn assemblée te doo mos a di dem ci opposition bu ko saaga da dugg assemblée ba ngay génn bu njëkk ba commission lañ ko doon def suñu ñëwee nag euh, plénière ñu yóbbu mais léegi yi couvrir sax da ngay biir biir plénière dégg ñuy saaga assemblée nationale te amul kenn kuy saaga lu dul député Benno Bokk Yaakaar violence boobu lan moo ko gën a saaga nit ci ay waajur saaga nit ci kilifa diine saaga nit ci vie privée saaga saaga saaga parce que balaa ñuy egg sëñ Moustapha Sy man amul lu ñu waxul foofu waaye man du ma kilifa diine mën naa lam leen waaye ñëw mën ak maa yow est-ce que sénégalais yi dinañ jóg taxaw ñu def benn motion sénégalais yi ni bëggatuñu député bu ñu yóbbu yóbbu assemblée nationale mu fay saaga loolu mooy premier élément loolu ñu seetaan moo andi lii may wax nag ni ñaari ñaari groupe dinaa waxtaan ak ba ci njëkk mooy ku ñuy wax CEDEAO CEDEAO lu yàqu ci Afrique de l'Ouest moo ko yàq CEDEAO nañu yem seen place waa ji jël na avion dem fekk leen foofu ñu def seen syndicat chef d'état def seen délégation ñu naan des députés de la CEDEAO ñu ngi ñëw lu seen yoon balaa may dégg ñu naan léegi dañuy créer benn force militaire contre les coups d'état yow doo wax ci troisième mandat lay andi coup d'état yi doo ci wax doo wax ci troisième mandat doo wax ci xaalis yi détourné ci réew mi ci réew yi doo wax ci ñiy jël seen i armée seen i di rey ay nit ne léegi suñu askan wi taxawee ba ne bëggatuñu ñooñu yow da ngay andi force force boobu muy def day ñëw xeex ak askan waa CEDEAO dañoo yem seen place ñun soxlawuñu seen i leçon ban président ci ñoom mooy exemple bi a joxe bañ naan ñoom dañuy ñëw joxe Alassane Ouattara exemple moom exemple Macky Sall exemple ak keneen ak keneen. kan moo ci example balaa dañ ñuy jox leçon les affaires intérieures et politiques du pays du rôle CEDEAO dañu yem seen place ñaareel bi di may lancer appel au mouvement de défense des droits des femmes ñun ñii ci lañu bokk man bokk naa ci mouvement de défense des droits dafa am yoo xam ne amul rapport ak des violences faites aux femmes am na ay jigéen yoo xam ne ñu ngi xeex xeex boobu depuis des décennies tout le monde les respecte dans ce ñëpp ay kilifa lañu ay responsable boo taxawee ñoom set jàkkaarloo ñoom xam ne gis dafa xaw jigéen ñooñu xam nañ ni ñoom kenn du leen yóbbu assemblée nationale ne leen yow saaga laa la sant ñoom waruñoo nangu ñu dévoyer seen lutte ñu yàq seen xeex daal di jël bëgg a làqatu ci affaire défense des femmes ne femme léegi elle est intouchable ba tax nag moom mun nañ ko def moom mooy dem def lu keneen ñemewu def mooy saaga mooy complot contre les gens mooy xaste lu ne moo koy def après ñu ne jigéen loolu ça va desservir la défense des droits de femme dafa laaj ay femmes ambiguïté comme toutes ces braves femmes qui sont battues pendant des années qui sont sur les plateaux télé à défendre les causes des femmes, qui sont sur l'international, qui ont acquis des, te boobu jamono ñoom yoon sax assise bu ñu war a am parce que ñëpp xam nañu entre l'écrasante majorité des femmes surtout rurales et cetera ak ñiy mën a combat bi dëgg dëgg dëgg léeg mun na am problème mu niveau. kon ñu leen di woo ñu xam ni saa yu situation amee nañu ràññeeku. c'est pas parce que jigéen moo nekk en cause rek immédiatement nous sommes dedans mais nañu xool mbir mi ni mu demee yëpp ci yoon comme ci yàlla góor dina tooñ jigéen dina tooñ ma teg ci violence ba léegi di yéegal sénégalais yëpp nag di aar ne leen Macky Sall ba ngi ci tànk bëgg nangu ay mandat Barthélémy Dias duñ ko nangu ma nga ci tànku ak ni muy instrumentaliser toujours la justice bëgg nangu mandat Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar et en tant que député à l'Assemblée nationale xam nga askan wi moo xool ba ne Barthélémy doy na ma ñu ne ko kii assassin la mu ne la bëgg naa kii lii la kii la le mu ne la bëgg naa moom moo ma doy pour ma jox ko Ndakaaru ñu dellu si waat mbër mbër mbër doy na moom moo ñu doy pour ñu mu mu ñu jox ko député ndakaaru mu demal ñu assemblée nationale kooku kenn warul am sañ-sañu ñëw tey na danga koy nangu loolu ci violence yi nga xam ne Macky Sall mi ngi koy exercer mu ngi koy waajal nag ñu teel a araftu bokk na ci complot yi nga xam ne bis bu ne ay officinam ñu ngi koy def di ko préparer di xool nu ñuy comploter position bi ci gën a fës mooy bi ñuy coow taay yi dem na ba mu wëlbatiku seen kaw nag ba tey seen dossier la man dootul sama dossier damay toog rek di seetaan di reetaan seen dossier la te ma wax ni Macky Sall moom ci boppam moo mi ngi ci diggu complot bi tey ci def déposition wax na ko waaye li gën a neex yow soo dee président de la république gardien de la constitution garant du bon fonctionnement et de la bonne application de la loi ñu jox la rapport d'enquête interne de la de, de la gendarmerie bu ñu bind ni procureur mi ngi ci complot bi def na léeg-léeg lii commandant diw def na léeg-léeg lii soo dee dëgg-dëgg président de la République war a woo ministre la justice ne ko yéetal li procureur te nekkoon a teggi tànkam nga jël rapport bi di ko nëbb di ko nëbb di ko nëbb ba yàlla feeñal rapport bi ci beneen anam loolu c'est de la haute trahison dootul sax complot c'est de la haute trahison que Macky Sall a fait lan moo gën a ëpp lool violence parce que rek nee nga kii ragal naa ko kii sama opposant la kii il faut ma liquider ko nga jaarale ko ci loo xam ne haute trahison la garaaw nga ko waaye violence boo xam ne da nga koy jaarale ci force de l'ordre ak justice force de l'ordre ak justice moo tax bi fi li fi xewee daaw xew mu jaaxle ba dem làqatu ci gannaaw kilifa diine yi Cheikh tijaan jéegi ngi nii m kilifa diine yi am lu ñu sàkku ci ñun ñu nangul leen ko ku fi nekk rek fii ci salle bi ak ku ñu déglu rek jàppoon na ni bu ñu génnee ci loolu Macky Sall dina nite Macky Sall dina jàngat ci li xew ba daal di feeñal beneen Macky boo xam ne day nekk kilifa goo xam ne day nekk au-dessus de la mêlée ñëpp loolu la ñu yaakaaroon kilifa yi mu ñaanoon sax li ma gëm man ba gëm ko gëm naa ni tey am nañ ñu leen bett parce que jàppoon nañ ni fa la ñuy jógee mu ubbi beneen page xool nu muy rafetalee demam xool nu muy rataxalee di diggante yi. xool nu muy effacer yenn tolof-tolof yi nga xam ne def na ko ci réew waaye nee naa loolu mënuloon am ngir ñaar bu ca njëkk mooy nit mooy xol mooy nit xol mooy nit waaye bu dee xol mer fayonte defante lu métti rek moo ci nekk bu liy amee nga ne gàcce la ak defet la yaa ngi dem waajal noo jëlee sa revanche ñaareel bi mooy obsession pour le pouvoir ak troisième mandat li ni lu koy firndeel lu simple la bañ ca génnee dafa gaawantu dem jëndi ay gànnaay parce que moom jàpp na ni suñ ko jekkoo gànnaay yee matul woon moo tax ndax il n'a rien compris réew yi fi ëpp gànnaay ba bés ba askan wa jógee ne doyal na muy Égypte muy Algérie première armée presque d'Afrique muy Tunisie muy libi muy feneen ak feneen Soudan askan bu jóg taxaw ngànnaay téewu ko gendarme téewu ko policier téewu ko ñàkk xam-xam weesuwul lool waaye ñëpp dëgg ngeen ak gis ngeen li mu jënd ci ngànnaay lu xew ci réew mi rek mu gaawantu génne fépp nag parce que foog na ni loolu day fees bëtu nit ñi ba ñu ñeme ñaareel bi mooy mu dem jëli ay nit nommé leen parce que jàpp na ni ña nekkoon ci bopp gendarmerie bi ak police bi matuñu woon peut-être wala defuñu woon li mu bëggoon mooy nañu tiire ci askan wi mu dem ñoo xam ne jox nañ ko garanti ni ñoom dinañu réprimer ñetteel bi mooy mu dem bindaat ay loi daaw yéen gis ngeen yëpp mu àndi fi benn loi sur le terrorisme normalement su defoon manifestation léegi ñun ñëpp terroriste lañu renforcer arsenal juridique bi ñeenteel bi mu dem ba yokk périmètre d'intervention de certains corps militaires pour ñu mun a intervenir même dans la vie dans loolu yëpp nee na ma ngay waajal boppam ci xeex loolu yëpp ma ngay waajal boppam te bañ a jël en compte nag li nga xam ne xew na fi ci diggante bi may fàttali sénégalais yi ni Macky bi mu fi nekkee léegi ma wax leen ñi nga xam ne faat nañ leen te ba tey enquête amul faat nañ leen wax ni dafa am solo de faat nañ leen te enquête amul fallu seen basiru fay Kékouta Sidibé Dominique Lopi Matar Ndiaye Eliman Touré Thiam Mamadou Ndiaye Abdoulaye Wade Yengo Ibrahima Mbow Abdoulaye Timera Lamine Koita Sect Ndiaye Yamadou Sagna Mariama Sagna peut-être enquête am na de waaye ba léegi ñu mbir mi ne ñii lii moo leen rey te ñi ci ëpp nag manifestation lañ leen rey université place de l'Obélisque Kër Massar feneen ak feneen lii tuutiwul de assassinat politique la mars 2021 fukki bakkan ak ñett daanu fi Cheikh Wade Baye Cheikh Diop Cheikh Koli Famara Goudiaby Pape Sidi Mbaye Cheikhouna Ndiaye Sadio Camara Mansour Thiam Moussa Dramé Alassane Bari Bourama Sempa Sané Chérif Abdoulaye ak Massiré Gueye mu taxaw fii ministre de la justice am wala des forces armées annoncé ni dañuy taxawal une commission d'enquête pour mu leeral lool ba tey ba sànq commission d'enquête ñëwul pourtant rapport département d'État bi génn fan yi nee na ñoom au moins sur les treize les dix gouvernement Sénégal moo leen rey c'est les forces de l'ordre ki lu leer nañ kon ñu jàpp ni c'est des assassinats de Macky Sall te nañu wax suñuy député ñu taxawal commission d'enquête parlementaire sur les assassinats parce que dafa jot juin 2022 ñu téye suñu liste ki lu dul yoon depuis juin ba léegi premier et manifestation yi liste yi ñu rey ci Abdoulaye Diatta Idrissa Goudiaby ñu saax saaxe ko ne bal reyu leen ñu lànk ne dinañ def contre expertise contre expertise bi ñëw ne bal moo leen rey ñu ne procureur bi nee na confier na dossier bi à un juge ba léegi dégguñu ci dara bal moo leen rey te li leer ba leer mooy bal bi ña amoon ay gànnaay jàkkaarlook ñoom te doon tirer force de l'ordre yi bi ci mujjee mooy rey nañ ci François Mancabou ci anam yoo xam ne ba léegi leerul xëy nañu ñoo ko jël mu wér génn di aw wax ma ne am kàttan yóbbu ko xam lu ñu def ak moom mujj hôpital ba noonu la jaare ay mbokkam ne dañ ko rey ay avocat am dugal ay procédure ñaar rey nañ fi Fulbert Sambou wala ñoom seen nit taxaw na ne moom confirmé na ni Fulbert Sambou dañ koo rey ak sax Didier Badji donte gisaguñu koor Didier Badji gis nañ bu Fulbert Sambou ñoom ñoo taxaw ne dañ koo rey kenn ci ñoom wala ñaar sax leeral loolu ba léegi boo dajalee lii rek ëpp na trente personnes yoo xam ne ci nguuru Macky Sall faat nañ leen sur des bases politiques ba léegi kenn leeragul kon suñu wax violence kan la ñuy wax Macky Sall la lii musul am Sénégal ci diir bu gàttee ni soo jëlee ci wàllu nag justice ñaata nit lañu jàpp tey ci lu tegul yoon ay otage politique ma limal ma leen Abdou Karim Gueye Outmane Diagne Cheikh Omar Diagne te li gën a neex mooy léegi bu ñu leen jàppee démb ak keroog Pape Alé keroog bu ñu koy déglu ak démb bi ñuy déglu ñoom Ousmane Diagne xam ngeen juge sec lu mu leen wax lu mu leen laaj woy xam nañ ni seen seen diggante seen jegeñaale ak Ousmane Sonko léegi loolu mooy crime ci Sénégal ku xamante ak Ousmane Sonko wala nga jëf juge war naa taxaw ci kanamu nit naan ko waaw sa proximité ak Ousmane Sonko loolu crime la wala délit la wala lan la bañ ciy jàpp nit Abdou Karim Gueye Ousmane Diagne Cheikh Omar Diagne Papito Kara nga xam ne lan la def publication ki ñu jàpp ko publi publier ñu ne dafa imiter beneen journal nee nañ journal bi porté wul plainte waaye procureur moom ñëw na ko jël si Ami ñu koy boole ci ay farce spéciale yu ñàkk na jël benn mer de famille téye ko boobu ba léegi Mor Gueye Assane Dramé Ibrahima Diédhiou Abdoulaye Ndiaye Babacar Ndaw Pape Ousmane Seck Pape Mamadou Seck Madické Diop Abdou Silla Bouna Ba Yaya Cissé Ndeye Sassoum Ndaw Pape Alé Niang qu'on qu'on vient de libérer Ndongo Diop nga xam ne liñ ko doon jàppee ne dafa doon filmer rëbës jour sama jour audition ñu ne doon filmer rëbës Ndongo Diop Fadilou Keita ta kook du Ndombo Diop sax comme ndel benn la Diop Taïf la ñu jàppee loolu Ndongo Diop Fadilou Keita parce que nee nañ dafa publier ci affaire Didier Badji te nit taxaw de ci télé ne dañ ko rey xam naa ko ba léegi procureur woowu ko waaw vingt et un personnes vingt et personnes tey ñi ngi ci loxo Macky Sall prisonnier politique lañu lan moo gën a lii te ñu war cee wax ci réew mi kon li may daanelee ñaar ba ñett la bu njëkk mooy maa ngi waxtaan ak magistrat yi nañu xam ni gannaaw yàlla mi nga xam ne lu ñu àtte dinañ ko layaat ci kanamam la ñu nekk ñun comme réew mu laïc lañu dañu ne la justice est rendue au nom du peuple mooy ñoom ci turu askan wi la ñuy àtte waaye ñu bëri ci ñoom dañ koo fàtte jàpp nañu ci turu Macky Sall la ñuy àtte am na benn magistrat français bu mag a mag a mag dafa bind benn livre waaye livre bi phrase bi ma ci gën a jàpp dafa ne muy jël sa dernière décision dernière dernière pensée bi muy am mooy sa carrière moo ko bind de nee na la dernière pensée d'un magistrat au moment de prendre sa décision c'est sa carrière ana yàlla ana askan wi ana dëgg kon nañu delloo ci seen xel te ñu mayante doole ñoom parce que yéen journalistes yi fulla bi ngeen am ci seen biir corporation ñoom dañ ko war a am waruñoo bàyyi benn juge mu wéet ci décision ba nguur war koo mun def pression ba Macky war koo mun a def pression ba ñu war ko mun a jënd wala ñu menacer ko ba dootul àtte selon son intime conviction nañu xam ni askan bi leen teg foofu reconnaissance askan boobu rek la ñu mën am ba léegi ñu ngi tudd Kéba Mbaye pourquoi ñuy tudd Kéba Mbaye pour ay actes yi mu posé ak discours mémorable bi mu wax fii ci université de Dakar loolu mooy reconnaissance nit ku nekk nag ci liggéeyam nga dem ba nekkatoo fi ñu lay tudd dina tuddee ay amphi di la tuddee ay salle parce que da ngaa matoon li ngay def dañu xam ni lépp nit ñi dañuy am responsabilité parce que député yi ñu jàpp nii ñoom mën nañ ci am responsabilité article douze code pénal lan la wax seront coupables de forfaiture et punis de dégradation civique tous officiers de police judiciaire tous procureurs généraux ou procureurs de la République tout substitut tout juge qui auront provoqué donné ou signé un jugement une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation d'un membre de l'Assemblée nationale sans les autorisations prescrites par la loi de l'État ou qui, hors les cas de flagrant auront sans les mêmes autorisations données ou signées l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale. kon ñoom seen responsabilité ñoom ak policier ak keneen ak keneen c'est engageant c'est pas parce que jox nañ leen ordre rek ils n'ont pas le droit d'arrêter ces gens-là te ces responsabilités-là on des autres formes de lutte ñaareel message bi ma bëgg a lancé ma koy lancé euh, les sénégalais mooy il faut que sénégalais bu nekk retrouver sa capacité d'indignation gis nga injustice lenn rek ma koy suuxat am na proverbe bu naan l'injustice se nourrit du silence des vertus ou quelque chose comme ça injustice li koy koy suuxat jaay doole li koy suuxat mooy ñi war a taxaw yépp ne lii du dëgg daal di daal ciy noppi wala nga ne tant que rek sama yoon newu ci nañu jëlaat suñu responsabilité nañu assume ni dañoo war a xeex ngir dictature bi Macky Sall bëgg a teg fii bu mu fi am parce que Macky Sall daf ñuy yablu sax ci américains yi est-ce que président américain am na sañ-sañ ne sama troisième mandat ça ne que de moi constitution amérique nee na ñaari mandat de quatre ans la bu jeexee demal est-ce que tey Barack Obama amoon na sañ-sañ ne man déedéet ça ne dépend que de mois je verrai loolu su ko waxee sa américain dañuy yablu dañ naan ñii duñu réew parce que benn waay mooy décider ndax moom day nekk candidat wala du nekk candidat li muy wax da ko xamul parce que je crois que la du problème mu bopp de problème niveau la noo mënee dem ba États-Unis ñoom xam nañ ne ñun am nañu constitution te constitution bi dafa limité nombre de mandat yi ngay leen askan wa 17 millions de Sénégalais yëpp seen yoon newu ci ça dépend de mois mu ngi yablu mu ngi xeeblu moo tax sénégalais yi laa bëgg ñu dégluñu ci lenn. boobu ba léegi Macky sal mi ngi def ñun ñu ne tekk du ragal de dañ ko teg ci lu bëri fitna dañ koy moytu yee yonent bi aleyhi salaam nee na fitna ngi nelaw yàlla rëbb na ku ko yee alxuraan ne ñu moytu leen fitna goo xam ne du yem ci bopp ki ko yee moom dong ku xam fitna doo dox jëm ci fitna loo tax ñu ko doon moytu waaye yàgg naa wax fii nii ay yonent sax dem nañ ba xam ne fitna ji ëpp na doyam ñu jàkkaarloo ak jàmmarloo ak fitna googu parce que nag am na fu fitna toll al fitnatu ashaddu min am na fu muy toll dee sax a ko gën yomb moo tax may woo Sénégalais yépp nag parce que li Macky di def moo ko tey lam ci jublu moom xam na ni coow gi gën a war a gën a rëy ci Sénégal mooy coowal bis bu ne damay def troisième candidature wax ma troisième mandat parce que du ko am waaye mooy coowal bés bu mu nee damay def troisième candidature mu bëgg nag fexe ba déclencher mbir balaa ñuy egg ci loolu comme ça dina am lu mu layoo communauté internationale bi mu layoo ne leen gis ngeen ñii dañoo violent ñii dañoo lii mun a justifier son troisième mandat génne gendarmerie police xeex am. moo tax bis bu ne mu def loo xam ne pour mun déclencher ñu la ñu koy moytu ci li ma wax nii mooy ñun dañoo bëgg Sénégal te bëgg nañ su Sénégal rek tegu suñu loxo nañ fi fekk Sénégalu jàmm nga xam ne dina yomba defar ndax réew mu xas a tàkk boo ko jotee soo amee mandat juróomi at juróomi at yëpp yaa ngi xool nooy faye day moo tax ñuy moytu waaye ni mu doon amee ci nit ñu baax ñi bu ñu demee ba xam ni lii moo ci sës dinañ ko def moo tax may woo Sénégal yépp nag ndax ñépp xam nañ ni gis nga ñi nekkoon ak Macky Sall te xam ko bu baax seetlu leen bu baax li may wax doo leen dégg ñu wax ci économie doo dégg ñu wax ci détournement yi doo dégg ñu wax ci insécurité doo dégg ñu wax ci contrat yi ñoom su ñuy wax benn wax rek la wax troisième mandat parce que xam nañ ni loolu mooy ndeyu mbili gi loolu moo tere waa ji nelaw seet leen rek doo leen dégg ñoom xam nañu xamante nañu seen wax yépp mooy troisième mandat muy fii muy bitim réew moo tax nag ñu ne ñu ngi woo sénégalais yépp man de maa jël sama responsabilité wax ko suñu constitution moo ne sénégalais bu ne am na sañ-sañu buñ ko buggee jaay doole mu jóg taxaw jëngu la résistance à l'oppression est un droit constitutionnel février deux mille vingt vingt ba léegi maa ngi koy wax ñu naan appel à insurrection ak seen waxu picc yooyu maa ngi waxaat sénégalais yi nañu xam lan mooy enjeu yi liñ leen fi wax lépp ci lajj gi Macky Sall lajj ci koom-koom bi ci mbay mi ci njëg yi te yàgg naa leen wax deux mille dix neuf laa leen ne joxaat nañ ko réew mi waaye dinañu souffrir ñun ñëpp est ce que loolu amut Macky Sall bu ngeen ko joxoon téeméeri mandat mënul. xamul bëggul réew mi day gën a métti rek quatorze mois moo des nag pour ñu jëlaat suñu réew defar ko bu ñu sàgganee ba Macky Sall ëpp ñu ful ci li mu bëgg jaay ñu doole moom ak groupe bu ndaw bi nekk ci ci ñu ko wër parce que duñu duñu lenn ci réew mi matuñu dara waaye bu ñu sàgganee ba mu ëpp ñu ful ba am li mu bëggaat kenn ci ñun bu mu ñëw toog di jooytuwaat kenn ci ñun bu mu woote ndimbal kenn ci ñun bu mu ne ana opposition fu Sonko jaar fu xalifa jaar fu Pur jaar fu Déthié jaar fu Aïda Mbodj jaar fu Absi jaar fu Maïmouna Bousso jaar euh, fu fu fu kenn ak keneen jaar bu ko kenn waxati xeex bi ñoo ko bokk ñun de accepté nañu jël li ëpp ci xeex bi nañ ñu saaga nañ ñu dóor nañ ñu pexeel pour tëj ñu nañ ñu rey sax ñun accepté nañ ko jël waaye xeexu askanu Sénégal dans quatorze mois ñu moomaat suñu réew delloo si réew mi ci wa loxo réew mi alalu réew mi des ci biir réew mi ñu séddale ko ci séddale gu màndu jëlee fi guerre jëlee fi népotisme loolu soreetul bu ñu seetaan Macky yàkkal ñu ko waruñoo ëpp fulla waruñoo gën a gën a bëgg Sénégal gën bëgg li bëgg moom moom boppam ak ay ñoñom la bëgg bëggul Sénégal bu ko bëggoon du jël alalu réew mi yëpp di ko signal waa bitim réew ñu dem ñun nag réew mi lañu bëgg te wan leen nañ wan nañ leen ko ba ngeen gis ko ndax la daj gëm naa ni bëriwul homme politique yi ko fi musa daj bi te réew mi ñu ko jaral soxlawuñ ci tarfata ay kon na ñëpp takku nag waajal na ñëpp takku waajal bu xeex jotee na ñëpp takku waajal ñu xeex ak Macky Sall lu ko mbir mi jaral nañu ko jaral lu ko ëpp parce que réew mu sa baax dafa am génération bu jël responsabilité incha allah macha allah yàlla du defal kenn de lu mu mënal boppam bu doon loolu Sénégal changé na bu yàgg France a ngi baax dañoo def seen révolution xeex États-Unis ngi baax dañoo xeex am seen indépendance def sécession keneen ak keneen. su Macky doxalee dëgg ñun ñëpp ñu ànd defar ba mu rafet waaye bu continuer nekk ci dul dëgg ba pare ne faw dinaa leen jaay doole ñun de ñu ngi wax Sénégal yëpp nañu fagaru ñu takk suñu ndigg jàkkaarloog moom te jàkkaarloog moom rek dañ ko commencé ñu ngi xool nuñ koy commencé ci fan yi amaana dinañu woote un grand rassemblement pour la démocratie et la libération des politique politiques au Sénégal amaana dinañu lancé waat suñu concert de casserole boo Sénégal yëpp ne génnewaat leen casserole yi te ay chaque concert de casserole dina doon référendum ku d'accord ci troisième mandat bi wala ku ci d'accordul génnal nga dóor waaye nañu xam ni suñu jógul suñu bopp am fulla suñu bopp Macky Sall dina dox ci gannaaw Sénégalais dina forcé waat toog ci réew mi te ni mu yàqee réew ba mu yàqu yàqet nu ko raw la koy yàqee ñu ngi leen di gërëm leen sant wasalaam